through this organisation kenn su feebaree sax ñëpp a ko dee yëg so dama foog ne suñu amee doole bi nguur dimbali ñu ñu mun a mobiliser the whole Gambia ñu ñëw nekkat together ba pare amuñ Ben office bu ñu jógee foofu noonu bu ñu organiser organiser Serekunda fii ba pare dem nañ ba Brikama ñu organiser foofu noonu tamit ñoom tamit taxaw nañ mbootaay boobu noonu taxaw na right now ah, seen président baa ngi nii mooy daat bi sol xaftaan bi nii mooy président yi waa Brikama West Coast Region am nañ KSM am nañ West Coast Region am na ñoo xam ne bu sumbaala lañ leen organisé waaye loolu doyul ñu waaw luy suñu ennemi moo ñu def gaa bi yëpp benn benn baat ba pare si benn voice lañ dee waxee waaw so luñ moo bëgg a wax style wakkas yi luñ mun a def am na lu bëri loo xam ne ñu ngi koo import biir dëkk bi ñun mun nañ koo liggéey am 100 mun nañ koo ba pare góom naa de lu gars yi di import di ko indi si biir dëkk bi ñun lu ñoo liggéey mooy jënaa garantie loolu loolu am naa garantie last time dañ demoon mini gis am am leeta bu ñu bindoon si ministre of trade waaye ñun waxtaan nañu moom wax nañ ko ni am na even table office office table yu bëri book shelf si sente table sii nii ñun mun nañoo liggéey loo xam ne lu daaxali te amuñu équipement waxuma la suñu amee Be pare wow, mang ngi leen di gërëm di leen sant luma bëgg a wax suma ko naree wax yépp waaw bàyyi ma man maa ngi tudd Amadou Diallo maa ngi bokk ci association weldasi si wax du bari damay wax rek tuuti ci wàllu weldasi comme man welda la lu ñuy gën a mun a ñaaral dañ dañ daan wax ne gambiens yi duñ dee faral di jàng mécc waaye mun naa wax ne ay fortune yee si ginnaaw bu ñu kum bu président bi toogeeg léegi diir bu ñu toll ni mun naa wax ne yuut si ñu ngi jàng mécce bu baax ba lu tax gisuñ leen ne ñu ngi jàng mécce mooy nanguñoo organise gos nit ki sa soo ko buggee dimbale tamit dafa laaj nga am foo koy fekk waaye ñun tey organise suñ ba tax na tey even su government jógoon tey ne dafa dimbale ouvrier yi fan la leen di fekk ana ouvrier yi gos ñu ngi tasaaroo so bari na ñoo xam ne ni tey depuis 2010 bu ñu formé this association dañ dee ote bon most of dem da ngay bo remba nit kuy naan ataaya sax nga ne ko nañ dem meeting sax mu ne la loolu waste of time la te li gën a waste time moom mu ngi ci kaw mooy baraada bu mu toppa everyday mu ngi ci kaw baraada boobu noonu musu see gis njëriñ nga nekk si dara two years three years gisuloo si njëriñ war ngaa change système nga seet beneen yoon booy jaar ndax dina tane ok ñun mbootaay bii nii diñ ko foomee suñu yéene yëpp mooy nañ fexe ba képp kuy liggéeykat si biir dëkk bi nga mun a xam ne liggéeykat bi am na ak xam kon nit ki tamit balaa ñu laa mun a respect nga respect sa boppa respect sa boppa bi mooy nga xam li la war xam li nga war a def xam lan mooy sa responsabilité nga jéem tok because doma adam da nga wara tel teel am responsabilité because balaa ngaa toog ba toll ci yenal amna ño xamne ni tay dëgg la mut nañoo takka jabar bi ñi mawuñu see dugg because of nekkun ci dara da nga xey rek di xaar broda bu dewe Europe dimbalé la o sista bo xamne ni mo fa nekk di struggle yor kër gi yor sa yaay yor sa papa ko nga ne yow nala bu di defal say service ci ndaw yi nga bu a am ci bi dekk bi dafa sat te amna lo xamne tamit mu ngi si gisee ñep nap si tukki bi lena la because of ouvrier bi gisuñ ko mu nekk because nit ki tamit si lum la gisé rek si la lay mëna ñé because suñ gisone ouvrier bi di dawal moto bu rafet di dekk ci si kër bu nice ñepp dinañ bu ko nekk ouvrier but so gisé so gisé ñepp bu ko tukki rek moy da nga gis always ku jégué euro bu ñëwee rek nekk ci condition bu normal so always yow tamit sa do ma adam lu mu bugg a moy so ci condition bu normal so su ma gisee ne kii dugg na fii dem na Mauritanie sax ñëw na am na kër dawal na moto man tamit amaa tàgget Mauritanie so su ñu wóoree ne moo tax always dama suñ ñëw GRTS bi ñun daf ñu yokkal lu bari because of suñ 2010 ñu ngee oote nañ leen mobilize pour ñu jàppalante ñu nekk benn ñu mun ñoo ku ñu bugg a dimbal xam fu mu ñoo fekka bon lii rek dina wonte képp ku seetaan télé rek di nga jàkkaarloo xam ne dëgg rek ok ñii lu ñu ma doon wax ten two years ago ndekete caaxaanuñ ñu ngi ci koom gos suñ booloowut duñ mun a xamante mbooloo mooy isi xamante xamante mooy isi yërmante yërmante mooy isi jàppalante soo suñ booloowut loolu yëpp du mun a am soo da gis ne ñun depuis bu ñu organisé ba tey am na loo xam ne ni dëgg dëgg dëgg dëgg mu ñu ngi koo dund fi ñu toll dafa neex gos man mun naa am problème tey ma jógee bundung su ma workshop a ngi bundung ma ñoo am fii liggéey di liggéey ma am problème bu ndaw pour ma delluwaat workshop dafa maa nekkal problème but because of this association am na suma mbokk boo xam ne ñoo ko bokk damay gestu rek wokk sa ba mu dem mu abal ma lu ma soxla ma liggéey ko delloo ko suñu taal. loolu damay wax ne nañ leen ñu jàppalante ñu nekk benn suñu xamante rek sa soo seetee liggéey bi tamit leneen ci liggéey bi tamit pour ñun ñu mun a respect suñu bopp because liggéey bi ñu mayoon na time bi jeex na bot li ñu gën a sonor right now mooy fu ñu toll nii liggéey bi soo xoolee. five years ago wala ten years ago bagage bi lu mu doon jar yokku na yokkuwaat na ñëpp xam nañ ne yokku na but price yi bunta li nga ko doon jaayee démb ba tey ñi moom nga koo jaayee waaye because of amuñ mbooloo pour toog waxtaan So gene fi nga topp bitik boo dugga pot sukkur di seen price lañ koo jaay because borom bitik yi lu xew rek xam nañ ko seen mobile ñu ngey toog together ñu ngey meeting ñu ngey def lu nekk dara mënut a daw without mbooloo without ñuy meeting di discuss so maa ngi gërëm waaye honorable Sidi gis nga lu fi ndaw yi def gis nga lu fi ndaw yi wax nu mu amee solo kon xam naa ne yoon du am ci benn faaw rek mu am bés boo xam ne dinañ leen indiwaat ñu gën a yaatal waxtaan bi ñu gën a may ku nekk mun a gën a wax. defe naa ne waxkat yi wax nañ ko yëpp mhm. ah, soo bëggee lim lu fi nguur gi def pour xàll yoon gi bari na mhm. wax nañ mbiri métier fii. loolu loo tax président Jammeh bu mu ñëwee mu yaatal GTTI te loolu loo tax as we speak mu ngi sampa multi million dollar state of the arts skill center si Ndembaan pour du ne métier yëpp dañ ko lifin fii nii si Kombo waaye si dex gi tamit pour ñoo xam ne ñoo nekk si dex gi ak ñu fi ne dinañ am easy access to Ndembaan métier boo xalaat bu soobee boobu su paree dinañ ko fa def te pour tamit nit ñi xam ne nguur gi duñ mun a jox ñëpp métier duñ mun a wax ñi yëpp ña ñëw leen ngeen liggéeyal nguur gi seen métier bi waaye pour sampa métier yi xalal yoon yi soo gisee am na ku fi wax tamit mbiri jéen yi jëndanteem jaay ak nappa bi nguur gi lu mu mun mooy ne ah dëkk yi nga xam ne foofu la nappee jéen ñu sampa fa ay yoon pour nit ñi. suñ jee sam suñ nappee ba pare jeen yi ñu mun ko yóbbu si marché bi jaay ko ba pare nguur gi tamit samp nañ marché soo demee Tanje soo demee tamit Tipa Garas loolu yëpp millions yi millions yi la fa nguur gi def pour suñ demee ñu am seen gaal suñ mbooloo comme ku fi waa mbiri mbooloo ak businessmen si ak ñeneen ak ñeneen sax mun nañoo nekkatu géeda dimbale nit ñi parce que nguur gi duñ mun a jëndal ñëpp gaal duñ mun a jëndal ñëpp fishing trawlers waaye defe naa ne waxtaan bi fii nii tey. am not solo the discussion is very fruitful mm -hmm. and this is surprising for every Gambian to note that there are Gambian. is there is a Gambian association comprises of all the skills works in this country, mm -hmm. ranging from carpentry, tailoring, electric, eh, eh, eh, um, uh, uh, uh, electricians, um, plumbing, masons, and iron rods, so on and so forth. That shows that the government has created the enabling environment. It is up to the youth to emulate these people and for us to move the Gambia where President Jammeh wants it to go. What he can do is to construct roads, to, where, to fishing centers, to build storage facilities, to build skill centers. That's why are, as we speak, multi-billion dollar state-of-the-art skills training center is being constructed at Nemban to enroll young people male and women across the length and breadth of the country in diverse areas of skills to, in order for the young people to acquire skills teacher. Yeah. Babu gay sonko? Mm-hmm. Yeah, tiya barakante kukirin don nem kontani jandolong. Ola nyimol mum beka diamu mm-hmm. ya itandin tolla janne ko president jammila clearo pour funding keliye jiko falling ka banku ko ke tati wala be falling ngamale wala fo. wo kontano warata o yawi tanti ko toon na ñaton ko a kumma mum fo bankudiŋol ba nooma kandi ɗum ye mum fo toñalom kabintol mo sabotira um tenin père nin honorable sidi a tara kabin na last meeting boda jang jimbol call a commune non tol bijannen tol mo fonnin keltin tol ka ɗo ko kangama jo sorole père nin sidi kote ko tala nga gal invite call fula to ngoleke